salaamaaleykum man la Bass artiste waaw maa ngi si Vibe TV waaw zëzël terme la rek parce que mbëggeel laa si waay ku ne nga trois xool ki la saf tuddee ko nu la neex mu ñu naan sama Choco Bane naan sama papa d'amour sama bébé d'amour man ma xool ki ma bëgg ne ko sama zëzël love Ouais, parce que je connais que c'est style euh, de manière humaine, il est style pop, c'est musique. Et pourquoi pas Parce que à une ligne, c'est à une ligne, c'est une école. Société bi liñ bëgg rek dañ koy defar ñuy waye muy neex di waye muy waaw muy xumbu di la dagan dañ koy tamit des fois def thème te incha allah bientôt dinañ dégg benn son boo xamante ni thème la avaye ba am nañ sama son boo xamante ni génnagul lu ñamax ñamax yi kon ñamax ñamax ñamax ñamax yaa ko moom bas bas bas loolu ngi toj dëkk bi incha allah dina génn inspiration mi ngi fi ñu ay xale lañu rek dëggal yàggul kon yees sax yàggul kon yees rek mënoon nañ ko xaaral ko ci kanam doo ko génnewaat kon yees suba lay def at a ah, kon tey jii nii tegaat nañ si dëggal mais nag xam nga suñu carrière tamit duñ ko jël di ko asaaloo nank nank la ñuy def parce que carrière daa gudd waaw incha allah dinañ génnewaat leneen ak leneen ak leneen ak leneen bientôt trophée yi la ma sekkoon ko ak neuf personnes muy dix amoon vote def na un mois léegi finalement def taanu ma ne man maa jël mes révélation ma santee ko yàlla beneen bi dama toog ñu woo ma nee ma ñu la waa Leral point ne dañ doon def benn vote ci internet bi internet yi voté ne yaay mes révélation ma quatre personnes ma santaat si yàlla bu baax noonu la raay yi demee noonu la prix yi demee daal sant yàlla bu wér di ko joxaat di sàkkuwaat seen ñaan bu baax na ñaan yi yegg na yàlla ñaan yi gën a yegg si te yàlla na yàlla xel doole liggéey bu ko raw xaar ko si ndax li ma si teg ko lu raw li incha allah war nañ ko mën a am ndax lii du dara firi ni ni ni ni ni nii rek warul tàng yëg ya, ci sa mbagg succès bi warul tàng yëg ya, ci dara ndax succès amoo fi dara xewagul amaguñ dara waaw projet bi mooy li ñu doon def rek def lu ko raw li ñu doon def benn yokk ko bu baax parce que bu ñu prix jox ñu Sénégal mu eh, yaatoo sa sa daal ñu ñaan yàlla yàlla na yàlla oyofal li si des parce que tamit xam nga lu ñu bëgg la gëm ko tey gisul lu ne daj si lu ne bu ñu demee ba ñu récompensé ñu si rek dañuy santaat yàlla bu wér mais nag ñu ngi waajal lu bëri incha allahu rabbi. comme ak def pat. def pat waaw ndax boo bëggee wërsëg ngay sàkku ñaanu yaay def pat boo bëggee barke ngay ñaanu waa di sant ñi may jàppale ñep ak ñi may ñaanal naan yalla ñaan yi yokk sax sàkkuwaat seen ñaan naan pastu ndaw la waaw xale la soxla na ñaan bu baax ñaan ñaan yàlla nag xam nga yalla gën mu tek loxo nak fii jamba am ko yalla jàppalee fi ne lu mu mën du dara yalla ñuy teg si yoon waaw ya, ñuy jàppale kon yalla na ya, yàlla xeeb doole sant sama papa Mamadou yalla tay ko santaat bu baax di sant Mamadou ngam ñaa waaw di sant tay ji ni ki nga xamne moy mooy Birima Mangara di sant Ablaye ngal ko disantu biwaso amagi Chanel disantu ñep ñu may jappalé man bas ma ngi sant am jantal mara ibrahima ya sant ñep ñep ñep ñep ñu may jappalé samay fan ñi may bëggé ak ñep ak ñi soxla bas ci cérémonie ak ñi bëgg bas ci té ala tax ko dégg numéro bas ci 77 la 475 41 02 ma ngi dégg ñep di ñaanal ñep jamm yalla sénégal am jamm yalla yalla dafa ñep jamm yalla yalla voilà pour képp ku bëgg am samay actualité samay news xam si lan laa nekk abonneel ci chaîne YouTube bu peace.